أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme ñu bañ waxtu wi neen li ñuy bañ mooy tafsir bi du ñun rek ñoo koy déglu partout ci àdduna bi dañ koy déglu comme dañ koy dugal ci internet bi te dafa am ñuy topp dars yi numéro par numéro damay bañ ñu nekk fii ba pare tafsir ñu enregistré ko xëy na ñun danañ dégg waaye ñoo ñeneen ñi duñ dégg te ñeneen ñi ñoo ñu ëpp kon nag comme ñëw nañ ñu bañ a neenal waxtu wi ñu def ko benn dars incha allah ci fàttalante sunu biir ba samedi incha allah ñu wéyal tafsir bi kon tomb bi ñu bëgg a fàttali sunu bopp fàttali ko mbokk yi mooy benn melokaan ci melokaanu yàlla yi tabaraka wa taala boo xam ne dinañu jëriñ suñu ci defee ay njàngat te mooy yàlla dafa ne moom mooy aji muñ aji muñ muñkat bu mag bi moom yàlla as-sabir comme yàlla mooy muñkat bu mag bi ñun ñuy ay jaamam mu bind ñu indi ñu ci kaw suuf sàkku ci ñun ñu jël melokaan boobu nga xam ne moom yàlla dafa bokk ci meloom yi moom yàlla tabaraka wa taala te mooy assabuur ñu xool yàlla lan lan la def lan la muñ ba tudd assabuur moom yàlla tabaraka wa taala ibnu abbas nee na radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne qaala allahu azza wa jal kazzabani ibnu adam walam yakun lahu zalik ibnu abbas moo nuy nettali ci benn hadis boo xam ne hadisul qudsi la mu ne yàlla tabaraka wa taala dafa wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy hadisul qudsi am hadis am hadisul qudsi am quran quran mooy waxu yàlla bu mu wax jox ko jibril muy nil ko yonent hadisul qudsi mooy wax bi mu wax direct ak yonent bi joxu ko jibril hadis nabawi mooy hadis boo xam ne yonent bi moo ko wax ñetti martaba yii la alquran hadisul qudsi hadisul nabawi alquran waxu yàlla la bu mu jox jibril jibril indil ko yonent hadisul qudsi wax ju yàlla wax direct ak yonent bi la jibril bokk ci hadisul nabawi nag mooy hadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal boppam nit ñi dégg bii nag ñuy wax hadisul qudsi la boo xam ne yàlla moo ko wax direct ak yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ibnu abbas moo ñu jottali hadis bi mu ne borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne kaddabani ibnu adam doomu aadama ne daf maa fenloo man yàlla te walam yakun lahu zalik te la wallahi loolu yellul sama digganteeg moom nit di ma fenloo man yàlla ma def ba pare wala ma wax ba pare doomu adama taxaw fële di ma fenloo man yàlla di ko weddi loolu da yàllul walam yakun lahu zalik mu ne bi gën a rëy nag sama digganteeg doomu adama waxuma sax li ma weddi waaye wa satama nii mu saaga ma moom doomu adama te walam yakun lahu zalik te loolu yàllul sama digganteeg doomu aadama kan may wax ak ñun yàlla xool leen doomu aadama yi li ñu fay yàlla weddi ko te yàlla nee na loolu jaadu ñu ne déet ñu saaga ma mu ne fa amma takzibuhu bu fekkee lim ma fenloo lim ma weddi iyaaya man mi yàlla fa zaama anni laa aqdiru an uidahu doomu aadama moo wet bind ko daf ko toqantalu maniyu dugal ko ci ndeyam génne ko mu nekk nit ma dundal ko ci àdduna faat ko dugal ko ci suuf ma ni ko dinaa la dekkil doomu aadama ne ma yow yàlla mënoo loolu mënoo ko mënoo loolu yow yàlla mooy weddi nga yàlla kan moo ko bindoon du yàlla fi mu jaar yëpp kan moo ko fa jaaral yàlla rey ko suul ko ne ko dinaa la dekkil taxawal la sama kanam doomu aadama ne yàlla mënoo loolu yàlla nee na loolu mooy lim ma wet mu ne yow yàlla mënoo maa delloowaat fa zaama anni laa aqdiru an uidahu doomu aadama gëm wax ci boppam ne man yàlla mënuma koo delloo ni mu meloon kama kaana comme na mu meloon loolu mooy weddi fenloo bi doomu aadama fenloo yàlla amma shatmuhu iyaaya fekkee saaga bi ma saaga doomu aadama man yàlla borom asamaan ak suuf man borom mbindeef yi doomu aadama saaga bi ma saaga fa qawluhu li walad fa qawluhu li walad mu ne man yàlla dama am doom te man yàlla fa subhaani sell ñeel na ma man fa su xoolal yàlla mooy sellal boppam de boo ne fa subhaanallah yow yaa sellal yàlla tey yàlla mooy sellal mu ne fa subhaani sell ñeel na ma fa subhaani an attaxisa saahiba wala walada sell ñeel na ma soxlawuma doom wala jabar wala nekkaale soxlawuma ko kon ñaari mbir a ngi nii yu leen di wan ne yàlla mooy munkat bu mag bi bi ci njëkk mooy lan mooy doomu aadama taxaw ne yàlla mu noo maa delloo ma nekkaat nit ginnaaw boo ma reyee saaga bi mooy lan askala ne yàlla doom ne yàlla dafa am doom mu ne haada hadisul qudsi أسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم في إخباري بقي من لين دي سن كلام حديث القرسي لا بو خامني yonent alayhi salaatu wa salaam askale na ko boroomam ne boroomam moo ko wax mu ne boroomam bi aji màgg boroomam bi aji sell boroomam bi boroom kàttan di ku màgg moo ne doomu aadama day weddi na ma fenloo na ma wax na ma du dëgg wax na ma mënoo koo defaat fi ixbaari bi annahu bi anni sa uiduhu kama bada li ma wax ne man ëllëg su ma reyee doomu aadama ñu dugal ko ci suuf mu nekk fa nangami at ba ay yàppam tasaaroo yaxam fënëx kawaram nëpp man yàlla danaa ko dajalewaat daal di koy taxawal loolu ma wax doomu aadama taxaw ne man yàlla mënuma ko man yàlla maa ko xabaar loolu ne man danaa ko def ndax man maa ko wax fii muhkami ayaat yi maa wax loolu ci sama téere alquranul karim man maa ne doomu aadama maa ko bind indi ko ci kaw suuf dinaa ko rey dénk ko suuf génne ko doomu aadama taxaw ne man yàlla mënuma koo dekkilaat te loolu wax naa ko ci sama alquran mu ne man yàlla maa ne kama badaakum taudun kama badaakum taudun ni ma leen binde woon njël been noonu ngeen di delloo selaat ni ma leen bindee woon noonu ngeen di delloowaat man yàlla maa ko wax wa qultu bada'na awwalul xalqi nu'iduhu ni ma njëlbeenu bind ni ma ko bindee woon moom doomu aadama mu dund ci suuf nangami at mu faatu ñu dugal ko ci suuf yàlla nee na noonu laa koy indiwaatee mu ne alayna mu ne in kunna fa'ilin man yàlla maay def loolu kama bada'akum ta'udun man yàlla maa ne ni ma leen binde woon ngeen nekk toqantalu mani ci seeni ndiggalu baay ma dugal leen ci seeni ruxum wayjur yu jigéen ngeen nekk mani mani boobu ma jël ko fa jaalnaahu fi qararin makin ma dugal ko ci place bu am sécurité ma koy changer étape par étape par 40 jours mani lumbu deret suuxu yàpp ay yax après doomu aadama ba judd jot yàlla nee na loolu ma defoon ba nit ki judd ci mani yu boobu fekk nekkul dara doomu aadama boobu taxaw ne man ni ma def mënatuma ko defaat loolu yéeme na wala yéemewul amrun ajib wa garib fi xaal ibnu aadam muy taxawaay bu yéeme taxawaay bu doy waar ci doomu aadama taxaw di weddi yàlla ne yàlla mënu koo dekkilaat mu ne man yàlla subhanahu wa taala summa yuiduhu wa huwa ahwanu alayhi yàlla nee na nit def dara tey boroom xam-xam def dara créer dara def ko indi ko wone ko loolu dund ay siècle wala dund ay at loolu yàqu ñu ne waa ji ko defaroon mënu ko ndax loolu d'accord ngeen ci kan moo ko nangu wax leen lu leen neex ci lu doomu aadama créé woon oto avion même marque yu njëkk ya lu ngeen ci mën a xalaat tabax wala ci lu mu mën a doon ci aar doomu aadama créé ko teg doomu aadama boobu ñu ne mënu ko defaraat xel nangu na loolu xel nangu yàlla subhanahu wa taala nag moo wax ne doomu aadama taxaw ne man yàlla fi ma taal jaar ak moom yépp bu dee mun ma ko delloowaat mu ne ci lu yéeme ci mbirum doomu aadama fa kazaba nii kasirum min bani ibnu adam min bani adam mu ne daf maa weddi li ëpp ci doomu aadama yi dañ maa weddi man yàlla tabaraka wa taala ñëpp ci ñoom weddi gi du yow yàlla mënoo ci wax waaye ngëm-ngëm la gëm ne boo deewee yàlla du la dekkilaat ñu bëri si ñun loolu lañ gëm ba doomu aadama yi sax dañ koy wax in hiya illa xayatuna dunya namuutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa daar ñu ëpp si ñun dañuy wax loolu ah dund àdduna daal moo am dara du xew ginnaaw dee bu nu dee kenn du nu laaj léegi saa sax nga dégg benn waay boo xam ne daf la yoreel bor ne la bu ma la fayul àdduna perte nga àllaaxira boo dof dof loo ba ma raw la àllaaxira da ngay perte parce que àllaaxira amul looloo tax doomu aadama yu bëri tey seen dund mënut a baax parce que nit bu gëmul àllaaxira dundam mënul normal ñi gëm àllaaxira seen dund day baax c'est parce que xam nañ ne ëllëg am na fa buur bu leen di dekkil taxawal leen ci kanamam laaj leen mooy yowma yaqumu nnaas li rabbil alamin yowmul xisaab yowmul jaza yowmul jam yowmul laa rayba fii bis boo xam ne yàlla dinañu dajale yàlla dinañu pang ñun ñëpp dajale ñu yàlla dinañu dekkil yàlla danañu fay yàlla danañu régler yàlla danañu àtte su nit gëmee loolu du yoral kenn ak su nit gëmee loolu du tooñ su nit gëmee loolu dundam du ko sànq waaye bu ko gëmul loolu ngeen di gis nii tey tey ñaata ci sénégalais yu nekk fi mbokk yi julliwuñu tisbaar julliwuñu tàkkusaan julliwuñu timis ñaata ci ngeen gis lii depuis démb ba léegi la ñu ngi ñu ngi ta samp di taxawal fajar ak léegi ba léegi ñu ngi musique est-ce que yàlla la ak yonent ah est-ce que diine la caaxaan la folo te ay kilifaa fa nekk ngeen defa ne réew nii lañ koy yore lii mooy weddi yàlla dëgg ndax gëm ne tey jii su malakal mawti taxawoon ci kaw podium bi yëkkati bolde daan ne yéen ñi julliwul timis yëpp da ngeen di dee tey ak bëri ñuy kàbbar jublu penk paaba sànq dafay waxtaan ak moom mu ne seen dëkk amoon na fa benn paa boo xam ne bu déggee nit dee na rek suñ ko ne nit dee na rek day taxaw ne allahu akbar ñu ne ko eh jàppoo te da ngaa sol daal te jubluwoo penk mu ne damaa tiit suñ demee ba doomu aadama bala muy jaamu yàlla dee dee nekk ci kanamam ah malakal moo di taxaw ne ko da ngay dee dee rek mu doog a baax kañ la doomu aadama di baax mbokk yi kon sunu borom subhanahu wa taala dañoo war a gëm ne ni mu wéete bindunu kenn fekkewu ko ni mu wéete dundal nu kenn dimbaliwu ko noonu lay wéetee rey nu kenn mënu ci dara noonu lay wéetee dekkil nu kenn du ci mun dara noonu lay wéetee dada dajale nu noonu lay wéetee atte nu kenn du ci mun dërëm ndax mos ngeen gis ku yàlla rey baayam wala ndeyam wala benn mbokkam mu ñëw taxaw kenn ci ñun bu génnoon fii ay agresseur agressé ko daal di koy rey wala ñu jam ko ñu toog juróomi fan wala ci bisu dëj bi ñu jékki-jékki rek ñu ne agresseur baa ngi nii ci bisu dëj bi ñu ne kii la waa ji la mu ne waa man la kay man mi maa ko jam boobu nu ñu koy def bis boobu ci biir mbooloo mi foofu fekk fekk nit ñi dañoo jógee ci armée yi rek ñëw toog waa ji ñëw ba ci baas bi rek ne waa ji ngeen suuli woon de man mi maa ko jam démb man maa ko rey ba pare soldaalam di bëgg a dem ndax dana ñibbi lu ñu koy def dañ koy rey ñun nag dañuy suñu yàlla day rey kenn war ñu dem armée la ñëwaat ñëpp naan alhamdulilah rabbil alamin bi ci mun dara pourtant xam nañ ko ko rey de wala xamuñu ko ah te du nekk kenn sax de mën naa nekk cinquante personnes ci dëkk bi ñëpp ñu xam ne yàllaa leen rey ana mbokki ñooñu ana doomi ñooñu ana jabari ñooñu ñooñu ñëpp bu ñu dajee xam nga lu ñuy wax xam nga lan mooy problème tey du yàlla lu tax nga rey ko de mooy yàlla jéggal ko parce que moom moo ko moom moo ko jëlaat kon yàlla mooy sunu borom moonu moom moonu moom mooy sunu borom bi mu ni indi ci kaw suuf si mbokk yi kenn fekkewu ko kenn mënu ci dërëm bu ñu fiy jël kenn du ko fekke kenn du ci mën tus bu ko ay nit fekkee sax taxaw léeg-léeg nit dee dikkal ko ñu daw dugal ko ci oto ambulance daw song hôpitaux yi ñu ñëw ñu dóor oxygène masque yi monte gaz yi docteurs yi sol ay gants takk blouse yi tiim ko ñu samp ko appareil yi machine yi di sonné gars yi dañuy jékki-jékki dégg machine bi naan teet teet teet ba dernière seconde mu ne kacc taxaw docteur bi lu muy def tekki masque bi simi verre yi simi gars yi daal di xool gars yi daal ne sayee ñëpp génn saal bi wala loolu mooy yàlla rek la kon du keneen nañu xam ne yàlla moonu moonu moom mooy suñu borom moonu bind te li mu wax dafay am nim nu bindee la nuy reyee te suñu reyee daf nuy dekkil kon jarul weddi moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne maadaama doomu aadama daf may weddi te man yàlla man maa wax doomu aadama taxaw naan wa qaalu a iza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id waaw doomu aadama taxaw naan ngal la ñun bu nu deewee bu nu faatoo ba nu nekkaat suuf ñu suul ñu suñuy yax fënëx suñu yàpp tasaaroo suñuy kawar ñoppatiku ndax danañu nekkaat nit am na ñuy laaj loolu man baasana min marqadina haza kan moo nuy dekkil ci sunu taraay yi wér dañuy wax loolu bu nu deewee est-ce que danañ dekki est-ce que àlaxira am na est-ce que affaire du ay faux problème surtout nag ñi jàng filo yàlla mu ne yemul sax ci ñoom ñu ne ndax dinaa leen dekkil waaye aw abauna al awwaluun ak seeni baay yi nga xam ne ñoo deewoon dëppi ndax ñooñu yàlla dina leen dekkil mu ne wa qaalu ma hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya wa ma yuhlikuna illa dahr bal qaalu misla ma qaalu al awwalun allahu akbar yàlla nee na am na sax ñoo xam ne dañu ne ña nga xam ne li ñu waxoon démb ñu mag ña la ñu waxoon mooy est-ce que bu ñu deewee ba fënëx ndax yàlla dana nu dekkil ñun ak sunuy baay yu njëkk ya ndax danañ ñu indiwaat ci kaw suuf yàlla mun a ñoom ñii la seeni maam waxoon rek ñoom moom la ñu répété waat gis ngeen moo tax yonent bi ne al kufru millatun waahid al kufru millatun waahid kéeféer benn yoon gese la yéeféer yu weex yi li ñu waxoon démb yooyu la yéeféer yu weex yi wax tey yéeféer yu ñuul yi li ñu waxoon démb loolu la yéeféer yu ñuul yi wax tey ñi nekkoon démb ay mushrik nga xam ne yàlla baaxewu leen pour ñu tuub ñoo jur mushriku tey yi ñi nekkoon démb ay kafara ñooy yéeféeru tey yi bàkkaar yi du tey la tàmbali ngóor jigéen kañ la woon depuis jamono lul jamono lul ban jamono la bi yàlla naan bokkaale bokkaale kañ la ah ah non loolu ngeen wax non weddi yàlla kañ la woon ah weddi yàlla moo fi jiitu iblis xanaa déggu leen bi yàlla di xas iblis lan la ko wax wa kaana min al kaafiriin yàlla mu ne iblis dem na bokk ci ñi ma weddi kon am na ñu weddi woon yàlla avant iblis parce que aalam bi ñi fi jiitu woon mooy jinne yi iblis moo nekkoon ki leen di waar bi yàlla subhaanahu wa taala xamee ci xam-xamam ne ñii duñu baax ci la yàlla jox malaaka yi ndigal nañ leen dégager ci kaw suuf si moo tax ñu dàq jinne yi jinne yi dëkk ci xur yi ak géej gi moo tax gis nga souvent ñiy dem ci xur yi genn wàll gépp dañuy jommi ak ñiy dem biir géej parce que iblis ci biir géej gi la dëkk ci la teg tëronam am na saxaaba bu tudd tamimu daar gis na iblis ñoo nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir géej gi jàngaleen histoire boobu mbokk yi sunu borom ne doomu aadama day weddi ma weddi goo xam ne taxaw wax ne man yàlla subhanahu wa taala mënuma koo delluwaat loolu daal ay lépp ak léppoon la lépp ak léppoon la mënuma koo indiwaat ci kaw suuf yàlla ne doomu aadama xanaa xoolul njëlbeen bi ma ko bindee wa laqad xalaqna al insaan min sulaalatin min tiin summa jacalnaahu nutfa fi qararin makin summa xalaqna nutfa alaqa fa xalaqna al alaqa mudga du loolu la de fa xalaqna al alaqa mudga fa xalaqna al mudga izaama fa kasafna al izaama laxman summa ansha'naahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsana alxaaliqin yàlla mu ngi ñuy wax ni mu binde doomu aadama mu ne man yàlla subhanahu wa taala maa ko bind bind goo xam ne dafa tegaloo étape par étape njëlbeen lan la woon toqantalu mani yi ci ndiggal baayam ma dindi ko boole koog toqantalu maniyu ci yaayam ma denc ko ci ruxumu yaayam ci place bu am dal bu am sécurité mu ne jaalnaahu fi qararin makin summa xalaqna nutfa alaqa après lumb boobu man yàlla subhanahu wa taala ma def ko mudura mu nekk suuxu yàpp suuxu yàpp boobu man yàlla ma jël ay yax fa kasaf na yax def ko ci yax yooyu man yàlla ma jël yàpp daal di koy sàng ci yax yi bi yàlla di bind liir ci biiru yaayam kan moo dégg liir bu jooy bi yàlla di changé étape yooyu ay étape liir bi nekk ci biiru yaayam yenn saa yi liir juddu ñu peese ko xam nga liir bu juddoo dañ koy peese yenn saa yi mu nekk ñaata kilo 5 kilo 6 7 mun na ko nekk est-ce que nit mën na nekk ñaari kilo ceeb nit mën na lekk ñaari kilo ceeb nit mën na lekk ñaari kilo dugub ñaari kilo mboq munoo ko lekk nga yor 5 kilo 6 kilo 7 kilo di doxantu ak moom te munoo lekk ñaari kilo ceeb xëyul sa biir mais xoolal yàlla xakim mu jox la doom yoo xam ne mu ngi sa biir mën na 5 kilo ngay dox ak moom boo tëddee mu tëdd
muy fo muy fo ci biir.
waaw boo toogee mu toog ba pare di nàmp ah di nàmp di nàmp boo lekkee mu lekk boo naanee mu naan trois mois yu njëkk mu kàbbar boo amee six mois mu rukkoo boo amee neuf mois mu sujjóot pour génn julli loolu tax liir buy juddu su loxo njëkkee génn dañuy delloo dañ naan état bi xale bi ñoo baaxul bu fekkee ci maternité yu ndaw yi la dañ lay évacuer yóbbu ci mag yi parce que wóorul bu tànk bi njëkkee génn dañ koy da ngay gis médecin yi dugal seen loxo pour tourner ko ndax boobu baaxul tànk bu njëkk génn baaxul loxo bu njëkk génn baaxul fan mooy génn jàmm am jëbi rek jëbi jëbi jëbi rek lii lépp bi muy am kan moo dimbali yàlla bi bi muy def loolu kan biñ demee ba hôpital waa kër gi ñoo njëkk a jaaxle bi ndaw si ne damay matu yendoo ko wala mu fanaanoo ko ba bët di waaj a set waa kër gi munuñ ci dara luñ def
évacué ko.
dañoo uti oto wala ngeen uti kalandoo wala ngeen uti taxi ñu jël yóbbu hôpital biñ demee hôpital ndax dañoo yegg si rek médecin yi yénne liir bi dañ naan joragul jotagul Yoragul.
ñoragul na toog ne mu toog ah papa ji ko indi munu ci dara docteur yaa ngi nii moom ndaw si mi ngi nii mbokk yaa ngi kër ga kan moo ci mun dara ok yàlla nee na maay toog ba mu neex ma mu ubbi yoon boo xamante ne benn yoon dong lay ubbeeku doomu aadama jaar ci man yàlla ma yombal yoon bi summa sabila yes sir.
yassarahu man yàlla maa yombal yoon boobu doomu aadama bi daal di ñëw te yemuma ci rek mooy man yàlla maa joxoñ liir bi ci biir bi ne ko uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud mu daal di génn jëbi ñu daal di xëcc bopp bi jàmm daal di am allahu akbar moo tax sayid qutb rahimahullah mu ne tey l'islam étape bi mu toll deret dafa bëri ci l'islam na partout ñu ngi rey jullit yi wala d'accord ngeen partout deret dafa tuuru tey ci jullit yi mu ne islam mooy judduwaat te juddu bu nekk foog deret ñëw juddu day métti ah l'islam mooy sampuwaat comme l'islam day sampuwaat nag foog mu ànd ak deret comme liir buy juddu day ànd ak deret te juddu dafa métti foog mu ànd ak deret mu ne loolu tax tey deret bari te loolu bi mu ko waxee kañ la ñaata at bi ñu reyee Saïd ak léegi mais terewul gis nga waxe bi mi ngi existe mi ngi mi ngi am moo tax tey ñu gis l'islam dundu l'islam metti partout dans le monde dundu l'islam metti benn ci sunu kër yi benn ci sunu mbedd yi benn ci àdduna bi xool leen fu nekk nekk jullit ak a metti waxuma nga nga tuddantu sa bopp jullit déedéet nga ni damaa bëgg a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam damaa bëgg a dund alquran ak sunna loolu laa wax loolu mooy lu métti waaw kenn du ko def tey te amoo problème kon doomu aadamaa ngi nii yàlla nee na fii laa jaar ak doomu aadama doomu aadama bi daal ne cuttu daal di génn fekk yàlla préparé na ko ndeysaan lu mu war a naan lu mu war a nàmp nit ki bi mu juddoo ci yaayam ban làkk la dégg kuy tontu nag da nga ma yëkkati sa loxo liir bi bi mu juddoo tey génne nañ ko sang nañ ko raxas ko ba mu set dagg jumbax bi liye woon diggante moog yaayam fi mu doon lekkee daal di koy takk band daal di koy faj ah daal di ñëw ci yaay ji ne ko am nga doom bu góor wala bu jigéen daal di koy teg ci wetam ah noonu la de nit bu juddoo dañuy dagg jumbax bi bu dee jigéen ñu bënn nopp yi sang ko ba mu set laxas ko benn morceau xamaguñu moom nu mu tudd ñu laaj yaayam noo tudd mu wax sa jëkkër nu mu tudd mu wax ñu daal di jël benn morceau benn ticket bu ndaw daal di ko ciy tapp daal ciy bind tur papa jeeg yaay mooy mooy wane ne kii moo jur ñoo jur kii comme amagul tur balaa liir yi jaxasoo ñu indi tëral ko ci wetam liir boobu boobu instant boobu ba làkk la dégg ku may tontu kuy tontu day yëkkati loxo liir bi instant boobu ba làkk la dégg arab yow déggul dara waaw keneen dafa dal xiif la dégg keneen am na ko yëkkati bisimilah làkk bi yàlla doon wax ma ba làkk la da ngeen ma xaw ma rek.
bisimilah waaw ba làkk la ba kay làkk bi laa bëggee wax pël la wala wala arab la la séeréer la doomu aadama boobu déggul benn làkk dara la dégg.
waaye yàlla moo koy ilham comme mu ngay xel biñ ko joxee ween bi rek lu koy wax ne da koo war a tëj.
kan moo ko ne da ngaa war a muucu lii kat meew la muucul allahu bi mu muujoo kan moo ko ne wannal soow moo ñëw mooy yàlla jàngaloon na ko ci biir yaayam ba muy nàmp baaraam bi wala liir ci biir yaayam day nàmp baaraam bi kon suñ la sexalee dafa war a muuj bi mu muujoo lan moo ñëw meew mu daal te xoolal ci jamono seddaay yàlla day nuggal meew mi ci weenu yaay bi mu nugg tàng jër ci jamono tàngaay yàlla da koy seddal allahu akbar
jël na jël na.
te ween bi boo jëloon paaka léegi nga dagg ko lan mooy génn direct.
ah soo mi fu mu jóge yàlla mu ne min bayni damin min bayni damin wa farasin labanan xaalisan saairan li sarabi allahu akbar.
boo jëloon paaka léegi nga jëm ci weenu jigéen nga dagg ba mu egg ci dënd bi luy génn direct.
ah soow mi fu mu jóge beneen bi mooy soow mi ak deret yi ñoo fa nekkandoo lan moo tax liir bi mu mujj deret ñëwul deret yi ñëwul ba léegi soow mooy ñëw wala kan moo téye deret bi ne soow bu- eh deret bul génn de soo demal kan la jël na jël na.
mbokk yi ñun fayuñu yàlla yàlla lim ñu defal fayuñ ko jéemuñu ko ma bal sax jéemuñu koo xam benn waay mu ne doomu aadama boppam rek boppam bopp bi bët bakkan gémmiñ nopp mu ne ndox yi fi yàlla def rek doomu aadama mënu ko fay yàlla ndox yi te benn bu nekk mënu cee ñàkk te bu ci ñàkk nga uti ko ndox bi nekk ci bët am na njëriñ wala amul njëriñ
am na njëriñ.
am na njëriñ lu tax yàlla def ko ci ndax da ngeen yaakaar ne ndox mi pour jooy kese la ah ah te xoolal ndox bi lu muy saf
xorom.
xorom ndox bi nekk ci bakkan ndax moo bu ma da nuroo est-ce que bi mun na cee ñàkk lan la fay def yenn saa nga gis comme tey dëkk bi nu mel ak démb gaa yëpp soj nga gis ku dem jënd ment latu short ak gis nga mënu cee ñàkk wala yàlla def fa ndox boobu ndox boobu moo lay permettre sooy nooyi muy tegu di dem facilement mu egg ci pont yi kenn du dégg dara mu mel ne bunt bu am graisse ak bunt bu amul graisse buntu weñ yi bu ci am graisse ñu koy wàcce ndax di nga dégg bruit bu amul nag ñëpp ñoo yëg ne ali ali soo ngi wàcc mu ngi tëj buntu bi ñëpp a dégg kërërëg bi ah ndox bi ci gémmiñ Allahu akbar.
xoolal raakol bi yàlla samp ci gémmiñ booy booy lekk muy roose bu amul woon da ngay lekk ba dee du mokk gémmiñ gi day dagg waaye du tooy bëñ yi day dagg ndox mi di roose mooy machine baa ngi wë- wë- di yëy quoi machine baa ngi yëy arrosoir baa ngi roose affaire baa ngi tooy bu mokkee rek di tax anama dem na yoonam kan moo fay yàlla loolu bi nekk nopp nag est-ce que nopp am na kubéer bi nekk nopp yàlla daf ko wexal ba mu wexat moo tax dara du dugg ci nopp yi mën ngaa nelaw fu la neex dara du ci dugg lu lu ne tëll rek daw parce que odeur bi lay ragal Allahu akbar.
da nopp amul kubéer yàlla def fi boobu Allahu akbar.
xoola bët bi nga xam ne bu lewet la am bu lewet yàlla nga xam ne dafa am xorom tuuti yàlla ut- utal ko muy tëju gémmiñ nga xam ne moom moo ci gën a am bi lewet bi yàlla utal ko ñaari kubéer est-ce que loolu ñun xalaat nañ ci
Laa léeg-léeg nga dégg kuy tissooli ich merde oh non aujourd'hui y a y a trop de poussière là ci tubaab tubaab la subhanallah Ah! yal na yàlla def ay jullit Euh, jàng leen tissooli ah waay waay jàng leen tissooli tissooli rek tissooli lan moo koy waral
am na ñu ne dee fomm.
gaz la ay gaz yuy laalante bu gaz yi laalante nga tissooli ko mu daal di génn moo tax nga ni alhamdulillah parce que da la doon rey ah dee fomm.
gaz bi demoon sa yuri da ngay dee nga ni alhamdulillahi rabbil alamin ah parce que yàlla génneel na ko amoo benn problème xoolal au lieu nga ni alhamdulillah nga ni merde pardon ah pardon ñun du ñu ay tubaab ay jullit la maa bu ñu tubaab yi indil seen civilisation bu ñu koy jël non déedéet ñun ay jullit lañ jullit mooy koo xam ne soo gisee lu baax lu baax da ngay jël xusul xikma walaw min alsinatil kuffar jël leen lu baax donte ne yéeféeri yee ko wax jël leen ko mais baax na jël leen waaye lu bon bul jël alxikmatu daalatul mu'min yonent bi nee na xam-xam jullit moo ko moom min ayna wajadaha fu mu ko foofu fu mu ko mën a fekk huwa ahaqu biha yaa ci yey waaye bu dee lu baax mais bu dee lu bon bul jël xam nga ñun luy suñu problème mooy dem ci tubaab yi jël lu bon li ñu am indi ko wala ñu jël lu baax ay col gu bon gi melokaan yu bon yi loolu du diine am nañ lu baax nun ko jël boole ko sunu lu baax parce que lu baax jullit moo ko moom huwa allazi xalaqa lakum ma fil ard jamian yàlla nee na maa leen defaral lépp mbokk yi Euh, kon yàlla subhaanahu wa taala bind bi mu bind doomu aadama doomu aadama war naa rus di weddi yàlla naan ko munoo ma defaraat doomu aadama war na am gàcce googu yàlla fii fii la jaar ak moom ba pare yàlla wërsëgal ko mu judd ci ndey ak baay ju koy sàmm allah ñay bu amee doom dafay taxaw di mar doom ji fas bu amee doom day mar doom ji xar bu amee doom da koy mar nit bu amee doom da koy sang.
da koy sang da koy solal yére teg ko ci wetam jour bi jot mu dem jàpp doomu jàmbur ñëw di ko rey ndax doomam bi kon yàlla bu la nee wala xat karram naa bani aadama yow teral naa la yàlla teral naa la wala teral la ñaata yoon la yàlla intervenir ñuy war a rey doomu aadama yàlla di intervenir ñaata ah bisu tabaski kan lañ waroon rey Ismaïl
hmm? doomu aadama hatta yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax yàlla intervenir nañ keroog ba ñu bëggee rey abdallah bàyyam ne bu ma yàlla mayee nangam dinaa rey sama benn doom yàlla may ko loolu muy xool ban doom la war a rey mu def ay bantal ay bant affaire bi dal ci abdallah te daf ko bëgg ci xolam nag mu ne ah kii de wax dëgg yàlla du ma ko rey mu defaat affaire bi dalaat ci abdallah mu defaat mu dal ci abdallah mu dem bokk borom xam-xam yi ñu ne ko déedéet léegi da ngay génne ay gëléem nangam ñu wax ko ko mu daal di génne gëléem yooyu loolu moo tax Abdallah daal di mucc loolu xikma yàlla la tabaaraka wa taala ci suñu reyoon Abdallah est-ce que yoonu yonent bi dina ñëw kon xikma yàlla tabaaraka wa taala kon doomu aadama chaque jour yàlla moo ki ko teral xoolal doomu aadama ni mu juddoo tey boo wàcc boo jógee léegi dars nga dem ñu lay tegal reer nan lañ la koy tegalee ban façon lañ lay tegalee reer bi fekkee ne am nga soxna waxuma célibataire de ku am soxna dañ lay indil table indil la ndox lalal la tegal la bool bi indil la kuddu indil la yenn saay benn serviette indil la saabu ah gars yi takk leen indil la ndox yenn saa yi sax ñu ne la papa di la raay quoi ngay lekk
très célibataire bu dee célibataire kay da ngay jaar ci mayga bi rek en général ci mayga bi ah yenn saa yi ci mayga bi rek ngay jaar wala nga jënd fonde rek sànni ci sànni ci ñetti beeku suukar la ci sunguf meew rek tëdd da- daal di naan tëdd wala ñu ne la mu ngi ci waay bi wala ñu ne la mu ngi ci waaj waaw jërëjëf wala ñu ne la mu ngi ci waaj bi nga dem di ubbi yaay raxas kuddu bi yaay tegal sa bopp kenn ndeysaan oh dund célibataire nag metti na de dana leen ci yàlla génne yàlla may leen ay soxna yu baax ndeysaan kon xoolal loolu rek bu dee bu dee bu dee rabu àll nag la ñuy jox lekk nuñ ko koy joxee oh dañuy ñëw rek sotti bu dee sax ginaar la nan lañ ko koy joxe ci suuf si lañ koy sànni mu ñëw di gës ba mu réer ba réer ba réer mu taxaw di far xoolal yow dañ la indil bool tegal la indil la saabu indil la serviette allah yàlla moo la dara nga lekk ba pare raxasu pomp daal di jël ndox naan daal di pomp sa sikkim ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana min al muslimin waaw kon yàlla ni mu la teralee nga bi nga nekkee ci àdduna yàlla dafa teral doomu aadama xoolal mu solloo ko ay yére mbokk yi imagine leen tey bu fekkoon doomu aadama du sol yére ndax dina neex a présenté moo tax benn borom xam-xam mu ne ñiy organiser miis mu ne dañuy nax miis yi ndax nit bu solee yére lay rafet d'accord ngeen boo solul yére rek ñu ne kii lu ko jot yeewu leen fajar ngeen dajeeg seen imaamu jàkk mu def yaramu neen lu ngeen di wax eh lu jot imaam koo dajeel fajar bu def yaramu neen dung ni ko yaayam juree mu génne noonu boo dajee moom looy wax dox na
même bu soloon kilot kese wala mu sol silip kese sol ay dàll génn noonu naan nii yor kurus looy wax looy wax da nga naan kii kañ la dof léegi nag tubaab ñëw bëgg a yéegal jigéen ci kaw pëjum solul ko dara benn yére mu ne dung mu ne ko da ngaa rafet ah déedéet nit yére moo ko rafetal sa taar li ko génne mooy yére mel nga nii nga mel dara manqué wul ci yow dama nga simmeeku fii nga ñëw taxaw nga xool nit ñi ndax dañ ne da ngaa rafet dañ ne yow da nga dof xanaa yow loo dal ah koo xam nga ne ki sol yére moo rafet kon ki ñuy ne dañ lay jox dañ lay def miis nga gis ñu jël 30 xale yu jigéen yëgal leen ci benn pojum ñoom ñu ngi def ay silibu neen ñu ne leen da ngeen a rafet mbokk yi loolu ay naxaata la yàlla subhaanahu wa taala moo rafetal nit ndax moo ko solal yére kon yàlla moo ko teral mbokk yi ñaareelu tomb bi ci dars bi mooy li doomu aadama wax yàlla tabaraka wa taala mu ne sotomani ibnu adam wa yuzini allahu akbar doomu aadama saaga na ma yemul ci saaga ma waaye daf ma lor man yàlla tabaraka wa taala yusannidu ilayya zaati almuqaddasa muy tilimal yu dannis muy tilimal sama jëmm ju sell ji man yàlla tabaraka wa taala nan la ko tilimalee ci sànni ma ay baadu naqaais yenn yu manqué yoo xam ne ku manqué moo koy def doomu aadama jël yu manqué yooyu di ko jëmale yàlla am doom ku manqué moo koy def ah ñun ñi am doom yëpp dañoo manqué am doom ku manqué moo koy def xoolal li ngay def pour nga am doom ku manqué moo koy def kon am doom ku manqué moo koy def yàlla subhaanahu wa taala jomb na loolu mu ne yemul ci utal ma doom waaye utal ma ndend utal ma soxna utal ma soxna wala waa ji tëdd ak soxnaam rek soxna si di ko coqataan doo doo doo doo yem yow doo yem yow loolu kan moo koy jëmale ci yàlla xasa lillah xoola waa ji waa ci jabaram ne ko maa lay sang tey doo ko ci biir douche bi di ko sang mu toog mel ni xale bu ndaw ne nii ak si kimam xasa lillah loolu man ku manqué la mu pare ñu koy diw di ko mileen diwal ko sikkim bi feñe ko ah loolu yàlla jomb na ko subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne utal ma doom ñu ne déet mu ne daf may utal soxna wa qaalu ittaxaza allahu walada mu ne yàlla am na doom wallahu akbar mu ne subhanahu tudd naak sellam moom yàlla kawe na jalla jalaaluhu wa qaalat ilyahud uzayr ibnu allah mu ne yahudi nee nañ Is- Uzeyru doomu yàlla la wa qaalat innasara almasih ibnullah mu ne zalika qawluhum bi afwahihim yatadaaha'uuna qawlu alladina kafaru min qablu allahu akbar ne nasa yahudi nee nañ Uzeyru doomu yàlla la nasaraan yi ne Isa doomu yàlla la mu ne lii de wax la joo xam ne dafa génn ci seeni gémmiñ ñuy toppandoo waxu yéeféer yi démb ndax yéeféer yi ñoo ne woon malaaka yi ay doomu yàlla lañ mu ne qaatalahumullah yal na leen yàlla alak yal na leen yàlla sori li yërmande ci wax ji ñu wax loolu annaa yufakuun ñii nuñ mun a waxee lii wa qaalu taxaza arrahmanu walada nee nañ yàlla am na doom allahu akbar mu ne laqad jitum shay'an idda indi ngeen mbir mu garaaw mbokk yi kenn ci ñun suñ ko ne woon yaa ngi dégg musique boobu mu ne waaw ñu ne ko sa papa mooy ngeen defoo te papaam amul foofu jabar luñ ko wax lu nu wax papam yaa ngi dégg riir boobu nga ni waaw maa ngi koy dégg kay ñu ne pourquoi pourtant sa père moo fay kii tey de nga ni lan ñu ne sa papa moo fay tudd de ki la ko wax noo koy def léegi nag loolu ñu bëgg ko wax yàlla tey bëggoo ko wax sa papa bëggoo ko wax sa sëriñ bëggoo ko wax sa kilifa bëggoo ko wax sa benn mbokk ñu bëgg ko jël wax ko yàlla kon yàlla subhanahu wa taala amul doom moo tax mu ne laqad jitum shay'an idda wax ngeen wax ju garaaw pour ngeen xam ne wax ji dafa rëy mu ne takaadu samawatu yatafattarna asamaan si mu ngi xotti lu xotti asamaan rëy na de takaadu samawat yatafattarna minhu mu ne wa tanshaqu l arda suuf di xar asamaan su xottee ko suuf day xar mu ne wata xirrul jibaal montagne yi mab lu tax an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom mu ne wa maa yambagi lirrahmani an yattaxisa walada yàlla nee na man jomb naa am doom jomb naa borom kër gi joxe dépasse bal sax dafa dem jënd camion ceeb camion camion remorque 16 21 mu jënd ko ceeb ba mu fees indi ci kër gi ñaata saaku la kenn xamu ko ba kër gi fees dal ak ceeb ñu togg añ ñu ne borom kër gi mu ngi xëccoo xooñ mu ngi jiiroo xooñ xel nangu na ko xel nangu na ko ah lu tax
parce que ceeb bi dafa doy
ah ceeb bi dafa doy
mu fi ni lépp ba pare ñu ne mu ngi xëccoo ci waañ bi dañ ko fekk mu yor kudd bi di xooñ xam ngeen ne loolu xel nangu moo tax mu ne in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani moo ku mu mën a doon ci keppaaru asmaan ak suuf nga nekk fi jaamu bi yàlla nga waaye doo doomu yàlla allahu akbar yàlla amul doom jaam la am ay jaam in kullu wala in kullu bàyyul kenn de man fi samawaat ñëpp dugg nañ malaaka yi ak ña fa nekk foofu rek la am in kullu man fi samawaat nga ni kon asamaan la mu ne wal ard illa aati rahmani ëllëg yowmal xiyaam booy ñëw ci yàlla xam nga ban garab ngay takk jaam doo nekk leen lu dul jaam anta abd wabnu abd wabnu ama moo tax boo dee ñu teg la ci kanamu ima jàkka ji imaam ñëw danaan innahu abd wabnu abd wabnu ama jaam doomu jaam bu góor doomu jaam bu jigéen nit ñi ne amin est-ce que te bu doon fajar la nga ubbi buntu kër gi rek nga dajeeg benn waaye mu ne la yow yaay jaam doomu yow sa baay jaam la yow sa yaay jaam la yow jaam nga yow nooy def waa ji dinañ ni reen
ah dinañ reen
da ngay reyante ak moom waaw tey nga taxaw ci kanamu jàkk ji tëdd gaa yëpp ñëw ñu ne jaam nga ñëpp ne est-ce que kenn weddiwul te démb bi ñu la ko waxee da ngaa da ngaa simmeeku daal di dem jël jaasi ne waa ji jaaraatal ci li nga jaaroon jaaraat ci rek bu dee góor nga ah waa ji na non man booy damay forek damay forek yow ma wax la lii rek nga dem du jël jaasi léegi nag waa ji dee ñu teg ko ci kanam jàkka ji imaam ne ko jaam baayam jaam la yaayam jaam la ñu ci ginnaaw ne amin jërëjëf imaam yal na la yàlla fay wax nga dëgg de Allah yàlla du sunu morom de ndeysaan benn dof dafa romboon jo armeel yi mu ne ñaw dag dey waɗi ñaw dag dey waɗi on ndeƴƴiide oto awl oto awluɓe ɓe ngoni oto noddinannoɓe ɓe ngoni on ndeƴƴiide ñaw ore o dego tukulor ngay ree dof bi dafa romba armeel yi mu ne ñaw noppi ngeen de ana ñu doon yuuxu ana ñi doon sara xolle ana bilaal yi doon yuuxu ñaw yéen ñëpp tey noppi ngeen borom dem yoonam waaw foofu mooy cité Thiel leeral foofu ku fa dugg noppi foofu dugg noppi waa ji dafa ñëw ba ci buntu armeel yi mu ne man aasha maat wa man maata faat ku dund dee ku dee ñu fàtte la waaye bu gudd la bokk na ci mu ne maali aran naas yazhabun summa laa yaudun lu tax nit ñi di dem fii ku fi dem rek lu tax doo del siwaat ahum taraku fanaamu ndax dañ leen bàyyi foofu ñu nelaw am tafaddalul baqaa fa baqaw waaye dañoo dem mu neex ñu toog yaa quelque chose de gaa yi ne nañ leen préparer suñu bopp nañ leen waaj Euh, dinañ takk ci dinañ tënk ci dars bi ñaari mbir mooy juhud ibnu aadam doomu aadama ku dëgër bopp la te doomu aadama dafa mën a sakk jëf doomu aadama dafa mën a sakk jëf te ku dëgër bopp la loolu dinañ ko tënk wa tuxyaanihi wa kufrihi dafa bew te doomu aadama dafa weddi yàlla te yàlla moom mooy saahibu niam yàlla ko sottil ay xéewal yuy walangaanu di dotteeku ci moom guddi ak bëccëg waaye doomu aadama du ko sant mbokk yi waa SDE ku sangu ci seen ndox ba weer dee nooy def ngay fay waa Sonatel ah da ngay fay
waa Senelec da ngay fay da ngay fay ñoo ngi di niitu jantu yàlla bi est-ce que fay nañ ñoo ngi noyyi ngelaw yàlla est-ce que fay nañ ñoo ngi gis ci leeru yàlla bi est-ce que fay nañ kan ci ñun moo fay yàlla ci li muy dégg boo dégglu woon ba guddi nga war a tëdd ñëw fëgg salal bëgg a tëdd rek ñaari malaaka yu ngan da ñëw taxaw ne la saawaay nga ne waaw ñu ne looy waaji def nga ne damay tëdd ñu ne ah facture bi nga doon dégg tey nag faya goo ko de fayal nga doog a tëdd ngay xalaat nooy faye ki yor bët yi ñëw ne la li nga yendoo xool aussi soo paree ah ngay xalaat kooku ki yor ngelaw li ñëw ne la li nga yendoo nooyi allahu akbar kan ci ñun moo mun a fay facture yooyu waaw duñ sant ki ñu ko defal su la benn waaye abonné woon làmb abonné la ndox abonné la lépp fayoo xanaa saa yu saa yu dajee moom lay wax merci waay waay jërëjëf waay sa waay yow amoo sa fay ah waaw lu tax ñun duñ sant yàlla ba waa maa bi ni amati rabbika ñun kan la ñuy sant yàlla boo amee xaalis rek waaw temps yi moom alhamdulilah quoi temps yi temps yeen moo tax mu ne doomu aadama dafa mën a wéet doomu aadama dafa mën a sëkk jëf yàlla da kaa sottil ay waami xéewal yu dul jeex doomu aadama teg ci tànkam du sant yàlla mu te keneen lu mu ko defal mu sant boo daje woon nag benn waaye tey rek ku la may mburu kilo nga daje ak moom suba rek waay sa waay ngoog de waay sa waay démb de yaa tax ma ndékk yow yàlla na la fi yàlla yàggal ku baax nga benn kilo mburu dong la la jox benn kilo yàlla mi nga xam ne chaque jour mi ngi lay jox nag looloo taxoon ganu Ibrahima bi daal di tuub ganu Ibrahima daal di tuub lan moo ko tuubloo Ibrahima dafa am gan toggal ko war a lekk mu ne gan gi waxal bismillah gan gi ne ko gëmuma yàlla du ma ko wax. Ibrahima ne ko comme gëmoo yàlla doo lekk sama lekk man ko gëmul yàlla du lekk sama lekk jógal ca xaj acca saay saay gan gi daal di gént jóg jël ay bagages am dox ay kilomètres rek yàlla ne Ibrahima yaa doy waar yow Ibrahima yaa ma jaaxal Ibrahima ne yàlla la laa def yàlla mu ne yow Ibrahima nga am gan nga togg ba pare di ko iñaane lekk bi pour mu lekk ko Ibrahima ne di yàlla déedéet waa ji gëmu la mu ne ko lu ci sa yoon waa ji gëmuma te bi mu nekkee ba mu nekkee ci biiru yaayam ba fii mu toog lekkam musta manqué maa ngi ko koy jox man faale wu ma loolu yow Ibrahima benn bis nga war ko jox lekk rek nga nekk fi di ko ko tere yow Ibrahima daal yaa ma jaaxal man kii gëmuma te dara musta manqué yow munoo mel ni man te rek Ibrahima daw topp yoon bi waa ji jaar ba fi mu ko dabi fu sori mu ne waa ji kaay waa ji ne ko lan la nga dàq ma sa kër ba pare di ma tourné ñëwuma Ibrahima jàpp ci waa ji di di ko ñaan di ko ñaan ba waa ji def demi tour ñëw Ibrahima raxas affaire yi teg mu ne ko waaw yow léegi tax nga jëli ma mu ne ko yàllaa ma yedd sama borom moo ma yedd mu ne sa borom lu mu wax mu ne sama borom nee na ba nga juddoo ci say waajur ba fii nga toog sa dépasse musta manqué mu ngi koy continuer te gëmoo ko man tey mënumaa muñ benn fan bi rek mu ne ah ndekk man yàlla noonu la ma jàppee ah Ibrahima ne sama borom de loolu la wax rek waa ji daan ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna ibrahima rasulullah waa waa ji tuub kon nanu dellu yàlla njukkal nanu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla may xel ak jom ak imaan bu ñu xamee ne yàlla mooy suñu borom moom dong lañ war a topp moom dong lañ war a sant moom dong lañ war a delloo njukkal mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñu amee question tafaddal
Sénégal yi yàlla ne